yaa rabbana Flash Teranga dafa ñëw fii ci dëkk bu sell bi dëkk bu tedd bi di Touba dëkku Cheikhul Khadim seen teranga bu Touba nekk fii ci Xayra jàkkaarloo ak kër Serigne Modou Bousso Dieng seen teranga day supermarché yu am lépp boo duggee da nga fay fekk njëg bu xéewale central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine si seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rekk sa aajo daal di faju كان رضي الله عنه مثالا يحتذى به في المنطقة فنصر الإسلام ونصره المسلمين وأدى الأمانة فجزاه الله عنا خيرا و وكما نثمن الدور الذي تلعبه يلعبه تلعبه أسرته من بعد ممثلة في أبنائه وخلفائه و... و... و... وتلك المسؤولية التي القوية التي حاولوا أن نهض بها رغم رقم الصعاب المتعددة ورقم ثقلها فجزاكم الله خيرا على ما تقدموه للأمة الإسلامية من حولكم وعلى ما تلك الجهود الخالدة التي بذلتموها في هذه المنطقة من العالم فجزاكم الله خيرا ولن أطيل عليكم جئنا لنشيد ونخلد ونتقاسم معكم هذه المناسبة التي هي مدعاة للتعبير والتفكير في ماض مجيد جمعنا لقد كانت إقامة الشيخ الخديم بين ظهرانينا كما قال الشيخ بابا للشيخ سيدي يا نعمة من نعم الله لقد أنعم الله بك علينا كما قال له ذات مرة وأعتقد أنكم كذلك أنتم نعم ستظلون نعمة تظلنا إن شاء الله في هذا في في السنغال وفي جميع بلدان المجاورة إن شاء الله وذلك بإشعاعكم وحكمتكم ونبلكم وترفعكم وخدمتكم لدينكم وجزاكم الله عنا خيرا وشكرا délégation bi Sidi Mouhamed Khatari nekk ki yor wàllu consul ci ambassade bi ba tey nekk chargé des affaires bi xaayam bil amal Sidi Mouhamed Aminou nekk ki jiite markaz centre culturel bu Mauritanie sunu mbokk me Mouhamed Foukounach bokk ci protocole président ba ñëw ndokkeel la ànd ak yow ci loo nekk nee na comme li mu la waxoon rek bi bi yàlla dogalee ngay doog nekk ci liggéey bu am maanaam bi mooy fas nañ yéen a ànd ak yow ca da ko xam lu mu gën a yàgg nga tegaloon leen ci ne gëm naa ko te ndax yéen laa njëkk gis ci ci ay gan booba booba ministère bi yoral islam bi fi yónnoon keneen la السيد محمد ولد الشيخ القزواني وهو سرير بيت علم وورع ما يليه من ما يليه من أهمية لهذه العلاقات الوطيدة التي جمعت بين علمائنا وفقهائنا وهذه الأسرة الكريمة في السنغال إن اهتمامه بتوطيد هذه العلاقة الروحية بين شعبينا سيكون إن شاء الله حصنا حصينا في وجه كل محاولات التفرقة والتشويش على مسيرتنا إن شاء الله وأعتقد أن أخوه فخامة الرئيس مكي سال له مواقفه وله قناعته في هذا المجال مع أخيه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد القزواني وأشكركم الكل قصارى جدي من أجل أن تظل هذه العلاقات على مسار طبيعي كما بناها الأوائل وأن الدولة أيضا ضمن كل التي تقوم به من أشياء تجاه هذه الأسرة الكريمة من ضمنها أيضا بقاء سفير مثل سعادة السفير إنه شخص ينبغي أن يثمن ما يقوم به ورسل تحياته الخاصة والخالصة إلى فضيلة الشيخ وأطلب له الدعاء من فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الوفد الكريم الوفد طوبى السلام عليكم ورحمة الله فضيلة شيخنا ومولانا الشيخ محمود المنتقى يسلم عليكم ومن خلالكم إلى من أرسلكم wa min almaaruf bi anna arrasula bi qadri almursal wa yaqulu lakum an yatlubu minkum shaxsiyan wa bismihi ka xaadim wa ka qaa'id wa sama nafsahu bi xaadimi rasul li hadihi alxadra almubaraka الطريقة المريدية الصوفية السنية باسمه شخصيا وباسم جميع من تعلق بهذه الأسرة المباركة an tuwajjihu lahu tahiya tahayaahu wa tashakkuratihi ila faxaamati rais sayid Mouhamadul Cheikh al Xaswaani wa yaqul lakum annahu yuakkidu lakum yaa yudriku jayidan mawqif faxaamatu rais sayid Mouhamadul Cheikh al Xaswaani maa ulamaa il muslimin xaytu kaanu wa maa ahli Sénégal laakin laa yaxfa anna li Touba nasiib al asad yaqifu maa Touba. يقف معه في الأفراح كقدومكم المبارك ويقف معه طبعا كذلك أيضا في غير ذلك فهو أخوه فهو كما قال الشاعر إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه ليجمعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك فهو يكن له المحبة والتقدير وإن شاء الله تعالى سوف يبقى daa'iman lahu wa yad'u lahu insha allahu taala bima fihi maslahatu shaabuhu almauritani wa shaqiqihi sénégal bi idnillahi taala wa an yakuna xayra xalafin li xayri salaf wa an yaktuba allah fi wilayatihi almubaraka alyumn walbaraka walistiqrar walisdihaar wa kulli man yataawanu maahu min alchaab wa min alxukuma wa gayru wa gayru wa gayru ala kulli haal yashkuruhu gaayatan wa yuthamminu xutaakum jayidan laa shakka annana nahnu nuhayyi haadha al yawm shukri lillahi taala taxlidan li zikra gaybati cheikhina alxadim ila man faahu bi amrin minhu taban li annahu amara jamia almuslimin aw taban atbaahu wa ahbaabahu an yusharikuhu fi hadi al afrah wa la shakka anna cheikh alxalifa uh, yuxalliduhu wa yuxalliduhu fi hadihi zarf alistisnai nasalu allahu taala alsalamata walaafia min jamii alawbia wa min alamrad wal ومشاركتكم له في هذا الظرف الاستثنائي رسالة واضحة جدا أنتم منا ونحن منكم فباختصار شديد ما شاء الله ما شاء الله على كل حال فباختصار شديد شيخ يشكركم ويطلب من الله سبحانه وتعالى لكم حسن الإقامة إن شاء الله تعالى وعودة ميمونة إن شاء الله وسترجعون مرات تلو أخرى وتبلغ تشكراته وتحاياه إلى الشعب الموريتاني xaasatan wa ila qaaidihi alxakim arrachid alsayid mahamadul cheikh alghaswani wa inchaa allahu taala qulu lahu annahu fi himmati cheikhi lan yansaahu abadan bi idnillahi taala wa qul lahu li yatib li yuqirra aynan wa li yatib nafsan lan yara bi idnillahi taala maa yakrahu inchaa allahu taala سوف تبقى دائما <laughs> قال سيكون دائما معه ان شاء الله سوف يبقى ان شاء الله عهده عهدا ميمونا مباركا مزدهرا باذن الله تعالى wa antum aydan bi wasfikum kan rasulin lahu insha allahu taala sa tajiduna nasibakum min dalika wa sairil muslimin wa shukran علاقه الشيخ باهل موريتانيا كرامه نفس العلاقه كرامه كرامه ظاهره وباطنه يقولون ان علاقتهم بالشيخ كرامه كرامه فالحمد لله الحمد لله هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح الحمد لله الحمد لله agsi leen ak jàmm ci seen teraanga bu Touba. nekk fii ci xayra jàkkarloo ak kër Serigne Modou Bousso Dieng seen teraanga day supermarché yu doomu réew mi taxawal yéen waa Touba xayra Mbàkke Daaru Marnaan Daaru Xuddoos Guy Mbind Ndindi Jannatu Daaru Minam ak li ko wër leen ak seen teraanga seen bànneex mooy suñu mbégte boo bëggee ñëw central équipement toppal tegtal yii. bu dee oto nga yor jaaree bunt Pikine dangay topp déviation bi ba ci station Ciel Oil boo jéggee barrage bi romb Siva première mbedd. bu dee nag da ngay dox wëral rond-point EDK koñ bu njëkk bi à droite central équipement ibbil na leen ay buntam du lundi au samedi de 9h à h